Salam gars nous ñuy nuyu kenn ku ne ci turam ak ah, di wax ngeen wéy di abonné te di activer cloche bi ñu ñëw ci organ club bi nga euh, fa euh, def na déclaration boo xamante kenn xaaru ko wax na Sadio Mané mais wax na ci ëllëgam ak Liverpool. de Klopp nag la que bu saison bi jeexee day quitter Liverpool donc euh, bàyyi Liverpool complètement gannaaw bi fa defee ay at yoo xamante mën nañoo wax defal na Liverpool mais. Un joueur bu Liverpool comme Sadio Mané donc avec il a progressé l'international sénégalais Sadio Mané et en tant que moom gagner gagné ay coupe yu bëri que ça soit muy Premier League Ligue des champions et tout ci côté yu bëri daf ci progressé Sadio Mané donc aujourd'hui Jürgen Klopp ne de quitter Liverpool donc une entraîneur légende boo xamante ni def na Liverpool donc et, eh, eh, ngi non, en tout cas dañ koy wax bon sens ci beneen aventure bi mu Sénégal Côte d'Ivoire euh, match bu nara neex euh, wara am lundi bi ñu jëm inshallah donc ñun ñëpp ñu ngi koy xaar ci un match bo xamantene ne ñu ngi ciy xaar Sénégal def li wara def mais je pense que ne ñaari scénario yi rek mo mëna am ci euh, match bi. parce que Côte d'Ivoire mëna ñu wax bête noir Sénégal mais man gëmmo lool mais ñaari scénario yi rek mëna am benn Sénégal ñëw door Côte d'Ivoire wala benn ñu nil li dem prolongation. ba ñu dem tiro bi wala bu dé prolongation Sénégal la koy gagner bu ñu tiro bi Sénégal la koy gagner noonu la demee donc mii ngi noonu mais ñi nga xamante ne dañoo am jafe-jafe seen wàllu ëllëg seen amal li seen ëllëg lëndëm lool ci ñoom ñoo am jafe-jafe seen néegu sëy ñoo am problème ngóora bëgg bàyyara tamit donc da ngeen woo Serigne Mouhamed Diakhaté la station 282 44 jaa ngeen jëf